weer yi ñu génn ñu nemmeeku rek célébrité yu bëri ñii di am soxna ñii am borom kër bile yoon nag kii di Mandiaye Seck moom moo dal di rek rejoindre marié yi gannaaw ba mu jëlee soxna kii nag ngeen di gis ci photo bi rek la dal di jël soxna mu doon nag xibaar wu neex ci ñi nga xamante ne ni ñoo di ay soppeem bu ñu xoolee nag ci photo yi lu ñu si jot a nemmeeku ci diggante Mandiaye sekk ak soxnaam si le mbëggeel bu rëy daal dina ciy feeñ ab complicité bu rëy si ndorteel li euh, d'après nu ñu gisee ni ni mel euh, si noonu nag ñu leen di souhaiter bu baax a baax euh, reménage ñoom monsieur et madame Seck di leen ñaanal sëy bu barkeel.